ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax gars yi pare ngeen mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen baalu àq ci tam xarit bi ñu jugee te di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla def jàmm ci réew mi. du nuyu promoteur bu mag bi Jamaïcain di ko ñaanal sunu borom defal ko jàmm di ko ñaanal lamb ji mu jëm nii sunu borom defal ko lu kawe njottam Franc ak Fils de Balla Fils de Balla ak Gora ku ne xam na ne ñaari xale yi ay ndaanaan lañ promoteur bi ndaanaan la. Gora Sock ñoo ngi lay nuyu di nuyu waa Unité 10 di nuyu waa Parcelles di nuyu mbër yépp tey lan ngay wax waa Cambérène lan ngay wax waa Parcelles lan ngay wax ñi lay seetaan. waaw ginnaaw ma sant yàlla rek julli ci bi di sama ñaari waajur di sant kilifa diine yëpp di jégul na koñ bi ñu dafay open presse bi quoi ndax maanaam am ñu fi tawat am na ñoo xam te ne bi xama dañuy nelaw ñu leen di tranché kon ñu ngi leen di jégul bu baax a baax di wax ñun xama rek doomu gox bi lan quoi. amuñ fu ñu ko defee fudul fii fii lañ ko mën a defee même bu jógee Cambérène fii lañ mën a open press di nuyu nag bépp mbëru parcelle bu fi teew rek ak waa jàmbaar comme si yëpp nu leen di nuyu di leen gërëm gis naa taxawaay waaw. jërëjëf Gora Sow gis nañ li nga mooy kàddu yi nga wax di nuyu mais sa diggante ki nga xamante muy combat boo xamante ne day bëri coow la boo xamante ne combat dër bi wax. gis nga jamono ji nga xamante ne mooy xaw ci li nga lamb mooy affaire derby ak ak combat yoo xam ne 100 pour cent da ciy joué ci lu bëree bëree bëri Fils de Balla sa adversaire dafa mel ne ku la nawloo wut ci lamb ji waaw xam nga kooku am na droit wax loolu ndax mbër mu nekk moom boo jógee sa kër ndam rek ngay gis booy dem lamb jaat ndam ngay gis doo ànd ak nit xanaa dinaa damay daanu mais man li ma waxoon jóguma si ba léegi du ma moromam si bëre du ma moromam si xeex du ma morom si doole maa ko dàq bëri maa ko bu doole te dimanche vingt et une heures dañ xam ne maa ko mën du ma moromam incha allah Sock Gora ñu gis ne lamb yi nga mës a am yëpp lamb ji nga gën a fonk waaye da bëre xale bu doy waar da ngay bëre xale boo xam ne gis nga mobilisation bi mu def démb tey xale boobu tey danga nga ne dama dégg say biir wax nga ne dimanche si heure bi lay xam kan mooy Gora Sock waaw xam nga loolu dara mbër buy bëre ay mbokkam dinañ ko jàppale teewal ko waa goxam loolu dama ci kontaan quoi man li ma wax jooju maa ko bu subar deer sama mbokk yi bu ñu wàccee ñëw fii moo nekkuñu moromam ñëpp dañuy liggéey tey du jour woo xam duñu liggéey man Fils de Balla lépp lu muy wax bu liggéey si géew bi na ko fekk su fekkee bu bëggee xeex da koy fekk bu bëggee bëre koy bëgg ba suba bu bëggee xeex bëre bu gaaw man li ma wax dama dafa leer man nekkuma mbër boo xam damay nekk fi di négocier jaar gauche jaar droite waxuma ko mu taxaw waxuma ko mu bëree nii ni ko neex na bëree ma jàpp ko daan ko waaw waaw fu mu ko fekk taxaw nga fekk fa jàpp ko daan su ma ko daanee kese yem ci da koy neex dama koy duma te ba léegi jóguma ci moom tappet la soo xàccee day muuroo loxo yi loolu soog ci moo ko mais loolu mënu koo gëm mag moom du lamb moo ñu booy nii de dañoo war a bëre bëre ay nawle lañ mais man maa ko mën fuuf te maa ko ëpp doole. foo ko teg. mag moom bokkuñ yaram bokkuñ doole bokkuñ nu ñu bëree kooku mul doole day wax nii rek bii rek i lax la ma ëpp kese mais amul leneen lu ma ëpp ëpp may mbokk ëpp ma doole. waaw. mais loolu si yow. yaa man yaa na yàlla. moo ci ma ci nekk di waxaat lamb ji dimanche la soreetul. li ma am solo di wax rek. mooy di woo fépp mboor mboor nekk. ak waa parcelle. ak waa Cambérène. nuyoo ma teg ci loxo mam père ba président jàmbaar. woo waa Cambérène woo Moussa Sy woo Amadou Ba. woo Go Faye woo Eliwa Diop Kane woo monsieur le di woo Gora Mbaxal gis naa taxawaayam bu baax a baax a baax di woo grand Babacar Gueye di woo Youssou Ndoye góor gi suñee Seydou Ba di woo maître Dior Diagne di woo Papino gars yi ni woo di woo Momo Mbaye di woo tuuti pro oto kooku yàgg na sonn ci ñun di nag nuyoo maa ngi sama loxo Modou Lo ak Yékini Junior di wax sama grand yanda bi teew du lii moo fi tax teew du lamb dañoo yàgg bi may jàng bëri dama jëlee bés yaaw ba Cambérène nga xam ne dama mën na 4 kilomètres sax fu ñu mu bëri ñu daan mu daan moo la doon tëggal combat non dama ma jàpp di ma daan ba pare muy tëggay lamp yi ma koy jël mais Fils de Balla dafa moom xam na ma 20 secondes ma seconde ñun ñoo mosul bëre ay seconde di woo Xaadim Silla gis naa taxawaayam xaalim si le transporteur waaw baa ma ñëw rek damay ñëw di woo Ada Dieng ak Modou Bey di woo Seexu Naajo Ousseynou Laay Bas Laay ñooñ ba léegi ci soo ba léegi ah ak sama doomu nday bi nga xam ne aw ma fayam otaam lay jël ànd ak gaay di sonn mboor mboor yëpp maa leen di woo ci combat bi di woo waa Cambérène ak waa Parcelles di woo Asmalik Seck kooku sama waay la papaam dama bëgg yaayam bëgg ma maay woo lës ak waa këram yëpp ak jeeseek mi nga xam ne chaque jour bu événement amee mooy jënd ceeb bi jënd lépp. Fils de Balla Gora Sock dafa mel ne dafa mel ne Fils de Balla am na loo ko téel dafa mel ne Fils de am na ay kàddu yoo ko am na loo ko téel. waaw. nee na Balla Gaye nee na ma ñëw ma ñëw nee na eh na Balla Gaye kon yow ay booyam loolu Balla Gaye. daa ko daa ma ko yóbbante loo xam waxu micro bi ngay wax ni booy may la ma micro bi. ma ne booy may la ma may la may la may la ma. Balla Gaye numéro la grand champion la. waaw daf na lu ñu ci làmb. mbër la mais dama bëgg su indee booy ba dimanche ba ma daan ko pare mu dëggal boobu ñu bëre maa ngi ci kat ci trois avance yooyu mu yor mu yokk ci benn muy man. dama ne la ñaari saako kopp yi ma fa gis yëpp xañ nañ ci làmb ji. muy kan ak kan. guy gi ak Balla Gaye yëpp xañ nañ si dimanche. man du ma mbër yooyu di négocier. ñaari saako kopp yëpp xañ nañ si yëpp xañ nañ si làmb ji ak Balla yëpp xañ nañ si làmb ji bu neex nañ waajal booy bi indi ko ma jàpp ko duma ko daan ko incha allah Doore Sock damaa bëgg nga booy bi wax ak moom mu lay gis Fils de Balla amul lenn lenn léegi lu nekk ci wàllu mbër lu mu le xam nga wala kii Fils de Balla lan mooy problème am rek wax ji rek moo indi làmb ji me mais nag làmb coolo ñoom nangul nañ ko mais coow la bari mais deful benn preuve sax bu mu war a bëree ak moom mais la 14 day xam ne deful preuve ma war a bëree ak moom waaw xam nga boobu ba léegi waxuma ko mais deful preuve ma war a ah. dama ne seconde mbër dafa yàgg ay jam ceer ñoo bu dool sept secondes laa ko daan ay mobile deux moom mën naa ko daan sax trois secondes quatre li ngeen wax nii mënu ngi gëm xanaa kay moom na taxaw Gora Sock yow da nga yaakaar ne Fils de Balla doole ñaari yoon loolu foo ko teg dama ko ëpp entraînement gën koo gaaw moom mënul dara dafa soj dafa soj dara du ko xeeñ bu dee maa ngi moom rek ci coono bu dee ku ku gën a coono sonn ci làmb ji rek yàlla na ko yàlla may ndam man maa gën a sonn ci làmb ji fopp gën ko entraîné gars yi ñoo nekk fi di wax rek wax moo baaxul ñëwal yow Bamba. góor yaa mën yaa bu doole. xoolal caméra xoolal caméra. nga xam ne li fi mu ne nii ñu ngi ci fin saison. te kenn ku ci nekk rek bëgg nga tëjaale saison ne nii ko waa parcelle dañ faa teg jeexal. ne maa ko war a andi. yàgg naa doon waa Parcelles ak waa Cambérène ah ak waa Mbor dañu faa teg jeexal teg jeexal na ko ku ko xam mooy combat capital la te la 14 incha allah rabbi day xam ne combat capital lay bëre. ne ko ne ko ne ko ma ñëw ma ci stade bi diree ko ko diree ko de. damay ñëw bëre moom jàpp ko daan ko incha allah. Eh, eh, Gora Sock kàddu gu mujj gi lan la looy tàggatoo ak lan ngay wax say supporters si ci non à la violence ak lan ngay wax promoteur bi nga xam si ni moom moo tëgg bis bi muy Jamaïcain di seen morom di xale boo xam si ni wax dëgg yàlla gis nañ làmb ji nu mu si sonnee lan ngay wax promoteur bi Jamaïcain ak lan ngay wax say mbokk. waaw comme li ma wax moom du ma gën a gore man ndaw laa. di wax rek ñi may jàppale ñëpp man soxla ma ko ma may xaalis may def sama poos ma bëgg ma jëndal ticket rek aw ma beneen problème man deuxièmement tali njaga mbay bépp maa leen woo inte neuf Cambérène arrêt yëpp maa leen di woo bàyyiwuma kenn parcelle gépp 1 ba 26 Cambérène 2 inte 5 Grand Yoff Grand Médine arrêt Sikale ñëpp maa woo waa Fakhalaan ñëpp maa woo bàyyiwuma kenn say ñebe ba ñëpp mbayaar yëpp maa leen di woo waa 37 ñëpp maa leen di woo forom ci kanam waa xeer bi bal bi bàyyiwuma kenn kenn waa ko Kër Massar mboor mboor fu mu nekk nag maa ngi koy woo sama combat bi di sant bu baax nag ku tudd alaaj Tafa kooku dafa sonn ci man du nuyu nag aada jeng aada jokkel ku sonn ci man la wax dëgg si yàlla ba ma gaañoo sama tànk bi ci ñoo ma jàppale may faju ci la bokk te loolu xam dafa met sama xaalis laa denc jël ko fajoo ko ba mu mat xam sant Ousseynou ak Bas Laye ak musuñ maa bàyyi benn yoon mais comme bëgguñ ma xiif bëgguñ ma même su ma jógee entraînement dañ ma laaj ba xam lekk naa kon kooku ak cant la ndoof mi ñun waa parcelle amuñ fayam bépp mbër bu fi def open press wala nga woote fi bis da ci ajël alalam daf ci da lay defaral baax teset xam nga ak cant te moom booy bu ndaw la ndaw la ndaw la di ñaari Baye Fall ñaari maam Seera Fall yi seen fay dañu sonn ci man chaque jour li nuyu nag sama nijaay gars yi samay jarbaat ñoom daa bàyyiwuma kenn rendez-vous rendez la Cados arène nationale dimanche ma ah. duy ko ba mu ko daan ko Modou Diep Modou Diep Modou Diep maa ngi koy sant di ko gërëm Modou Diep maa ngi koy sant di ko gërëm gis nga nit ba amee ci yow yëg-yëg di la woo guddeeg bëccëg sooy tëdd mi ngi lay woo booy entraînement mi ngi lay woo kooku ak cant la Modou Diep aw ma fayam Eh, di sant nag coach su coach su jàmbaar yëpp gis naa seen taxawaay yàlla nañu si yàlla fay di nuyu teg loxo nuyu nag combat bi eme sama géwél maa ngi koy nuyu waa waa 19 maam Fatou may ba ab sa mbay ñoom ñëpp maa leen woo sama combat bi waa tee mag si nag maa leen woo ci combat bi di woo sama mag Modou Lo sama mag Papa Sow sama mag Yékini Junior sama mag Yanda di jaale sama mag Moussa Dioum yàlla ko yàlla yërëm taxar ko àjjana doon taxaw fii taxawaayam doon teew fii nit ku baax la ku mën sonn ci doomu adama di nuyu Mansour ba doom mam père ba mu gën ci jàpp yàgg na ci jàpp di nuyu ñëpp ay ma absa ay badiga ñoom ñëpp maa ngi woo sama combat bi man doomu Parcelles laa nekk doomu Mboor maa ngi woo ñëpp incha allah rabi rendez-vous dimanche incha